alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen bokk jullit yi ci àdduna yëpp man Abdou Bara Médina Baye Kaffrine maa leen di nuyu te di leen eh, feddali mbokk lislaam giñ bokk lislaam mu yonent yàlla Muhammad ak lim indi ci loolu nag jullit bu ko nattu jotee mu yonent nee jullit bu ne jul mbokki jullit de ñooy poosam poos nag boo ko làmbee léeg-léeg nga daje fa xonjam léeg leen nga joj fa këyit yu foor waaye daal sëñ na koy alxuraan nee na dinaa leen nattu ci ay mbir bokkoon na ca xalal ju sànku naa danga am alal bëgg ko lool ma dikk indi fa suma mbir yàlla nag ci mbiram laay e, jëf la ko neex waaye jëfu ci moomalu kenn te itam yàlla buy oto essence bi koy dawal mooy lii xam a neex moom laa de def kenn sañu ci dara ci loolu nag maat bi nga xamee ne mi ngi fii ci Kaffrine maat bu mag boobu nga xam ne mooy maadul ummi ñu tuddee ko daaru oloomi diini këru xam-xamu diina mu jut fukki maat ak juróom-ñeent ak moom muy ñaar fukk maat boobu ci boori ngoon si dafa lakk yàlla nag moo dikk ak mbiram lakk na fukki kalaas ak ñaar lakk nañ ca baa yu bëree bëree bëri lakk nañ yëpp def na dóom ci loolu nag maa ngi woon ndimbal daleek ci président de la république monsieur Macky Sall ni mu bëggee diina ak ni mu mën a xettalee nit ci doomu aadama surtout ko tollu foofu fii fu ñëwee fi la ñuy jànge alquran fi la ñuy jàng dañ fay jànge alquran dafa jàng sunna yonent dafa jàng xam-xam pàkk boobu leen moo lakk tey ci ngoon si te ñun ñuy ay baadoolo yoo xam ne lañ xamoon ci nawet fara-fara na jeex na yaa kon ñu ngi koy xoo de xoo ministre l'éducation ñu ngi koy xoo moom itam ak ministère de l'intérieur ak bépp nit jullit nag boo xam ne dégg nga wax ji ci rajo yi li ko dagg ci dërëm kilob ciment lépp lu mën a jagal fu néegab néeg bu ñuy jànge alxuraan képp ku ku bëgg alquran bëgg tiyaabo yàlla ñu ngi la cay xoo ngeen jàppale ñu ci bu baax a baax a baax a baax a baax kon daal xeebuñ dara yéemuñ dara lu nit indi xam eh, na benn société bu nekk Tamba Sidi Mbuub jiite ko moom bi mu déggee affaire bi nee na joxe na juróom fukki taabal ba kon moom wax na loolu am na ku ne Dakar léegi téléphoné nee na dana joxe fanweeri junne eh, am na ku nekk Kédougou nee na dana joxe fukki saakoy ciment bon daal maa ngi xoola daal ci gàttal képp koo xam ne xam nga dërëm ba million ba fukki million la dagg ci fifteen daal ba fukki million li ko dagg ci kilo ciment ba fanweeri tonne téeméeri tonne ciment ak weñ lépp lu ci nit xam te nar koy bëgg alquran ñu ngi woo képp ko kum ne ci yow ku bërilee ku tuutilee ci xem ku xamut lu may sa xiina nga ñaanal ñu yàlla yàlla jàppandal ñu li ci xam waaye itam yaa ngi ñu def yi na dexem kon daal maa ngi koy dalee nag ci nguur go rawatina gouverneur région de Kaffrine rawatina préfet bi rawatina nag mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey yëngatu ci xalal ñu ngi la cee xoo bu baax a baax monsieur As Ndaw ak euh, Amar monsieur Amar ak bépp magasin bépp ku yëngatu ci xalal daal te yàlla dénk la dara kafri nag fa Sénégal Gambie Guinée xadduna wërngal këpp Europe képp koo dégg ko te xam loo dee bëgg nañ nga dimbale ñu ki nga xam nag mooy njiitu taal bi mooy sëriñ taala dafa wax ne alxemes la ndax gune yi mënu ñoo ñàkkaa jàng suñ toogee loo yàgg jàngiwuñ seen jàng mi day yàqu moo tax suñ taalane kon alxemes nañ fi daje ñun ñëpp lu waay am rek ñu dajale ko. maa ngi ñaan nag borom rajo yii ñu tegal ma ko ndeg yàlla mooy rajo kawlax rajo Alfayda dina Baye kafrin rajo Këhi rajo Kaffrine rajo Xawsul Bariyati rajo Diine ji FM rajo Pakala Nganda rajo Channel FM Jokkul. képp koo xam ne dégg jot nga ci kii bi te man ma koy tegal ndeg yàlla nga tegalal ma ko ndeg yàlla loo man rek fekk alxemes ñu kii ci numéro téléphone képp koo xam ne am nga loo yónnee numéro téléphone yii ci nga koy ci boo ci yónnee rek dana ci jot maa ngi wax sama bopp li ci des mu bàyyee ko koo xam ne moo koy wax 653 47 32 Abdou Barham mi dina bàyyi Kaffrine ku ci oote rek da nga ma jot su fekkee jotu la ma ñii may wax si boo leen oxee rek ku ñuy wax oustaz Mohamed Thiam mooy adjoint directeur u école bi Baye Gisee oustaz Jibi Ndiaye Baye Siñaan Góor daam ja ñii daal ku képp koo xam ne xam nga loo yónnee koo ci jot rek numéro téléphone am danañ ko wax léegi jàng ko boo ko yoxee rek danañ ci jot incha allah maa ngi yaakaar ne képp ku bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg alquran soo déggee xibaar bi danga ci def sa kem kattan waaw kon nag maa ngi koy wax maa ngi wax rajo yi ñu tegal ma ko ndeg yàlla man nag amalu ma leen fay dañ ma koy tegalee ndeg yàlla rek wasalaam. 77 658 00 47. 77 511 09 22 mooy Baye Guissé. 77 655 55 91 mooy Oustaz Djibi Ndiaye. 77 570 91 41 mooy Oustaz Dame Dia. Baye Signane Gour. 78 412. 53 74